asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéenee safoo chaîne bi di Buzz Actu 221 ñu ngi sàkk bu baax ngeen abonné aimé partagé commentaire like ndax kat saa su ne loolu dina nekk li nga xam ni luñ daal di jàppale la mën nañ ne jamono guñ toll nii li nga xam ni moo jëm ci wàllum nawetaan wala kat li nga xam ni moo jëm ci sport bi nga xam ni saa su ne dañ ko daan taxawal ngir vacances élèves yi di ci lu ak di ci xamante ak di ci football bu baax a baax ci lenn ci ay jongalante loole mën nañ ne foofee ca Vélingara jamono guñ toll nii ñoom commencé nañ gën ak bataaxal ginnaaw bi nga xamee lenn ci xale yi commencé bu baax a baax di sonkariser bu baax lenn ci stade yi yii le sax na moom président Abdoul Aziz Mbengue nekk njiitalu ODCAV organisation départementale de coordina coordination de activité de vacances moom daan na xamle jamono guñ toll nii foofee ca Vélingara département bu Kaolack daan na xamle bu baax a baax amatul leen li nga xam ni dinañ ko toléré ci li nga xam ni moo di sport yi le ci stade yi le ñu daal di commencé di ci dugal li nga xam ni moo di politique ndax kat dem loolee duñ ko nangatu benn yoon moom président bi di Abdoul Aziz Mbengue daal bu baax a baax gis nañu fan yi ñuy weesu dañuy commencé di dugal ci stade yi tur nga xam ni moo di chef de l'opposition bi la daal di wécc turu Ousmane Sonko di wax ni Sonko Sonko Sonko Sonko namoon nañ la ginnaaw Sonko boobu Sonko Sonko nangoon nañ la loolu mu ngi commencé déranger bu baax a baax ndax kat sport jubile ñoo ànd waaye kat daf mel ni jubile bi neexul président ODCAV bi la di Abdoul Aziz Mbeng ba tax na bataaxal boobule daal na ci xamle bu baax a baax li nga xam ni moo di match bu nekk bi nga xamee sa sa ñi nga xam

daa dugg ba li nga xam ne moo di nawetaan te loolee sax mën li nga xam a ni mën nañ ne dara dara nekku ci ndax kat jubile lu nekk lañ koy defee lu nekk lañ ko daan wayee kon nag bu ñu demee bay tànnal xale yi li nga xam ni moom la way ak luñ dul way waaye loolu nag nekk na wu ak doy di dëgg-dëgg waaye tamit nekk na ak li nga xam ni ñàkk yaatu xool bu baax a jàpp département bu Kolda nañu bàyyi xel nag njiitalu ODCAV bi le daan joxe ak bataaxal xam ne bu baax baax amende yi ñu ngi xaare bu baax baax cent mille francs ba jàpp cent mille ba jàpp sax yow équipe bi doo bokk li nga xam ni moo di ci nawetaan yooyu la bu leen di fàtte abonné aimé commentaire like ndax kat saa ne loolu di stade bi nga xam ni moo di stade Abdoulaye Wade ba jàpp ci lenn ci stade yi la stade Thiès fi nga xam ni tey jii mën nañ ne ba jàpp lenn fi nga xam ni jamono guñ toll ni suñu xoolee daan nañ bu baax ci mim réew di Sénégal ginnaaw bañ ko jàppee ba léegi waaye nag lu mënta am ba am ñu ngi xaar bu baax ndax ñi nga xam ne ñoo di xale Vélingara yile bu Kolda yile dañuy wéyal di wax sonko sonko wala kat dañuy dañuy xaar dañuy bàyyi li nga xam ni moom docteur Octave bi daal di koy xam ne di Abdoul Aziz mbeng asalaamaaleykum wa wa barakaatu. de la commune.